ay ca bàkk ba jib na te président Macky dikk ci l'enquête yéen a ni contrat yi wala nag convention ya nga xam ne xaatimoon nañu ko ñeel beex gaz bi faw nag ñu xoolaat ko tëggaat ko raxasaat ko ba nga xam ne la sa amatul njariñ te doon doole rek wàllum buxum geex ger gi loolee ñu jële ko fi njiitu président Macky Sall nii loolee nag moo mën a kantanal ger ga nga xam ne duñu ko sumb ngir jële ko fii te ngir mu antu sàlla ngaari lam tooro bu sa nekk gis sa yene kay bi ne Macky Sall promet de large concertation ce mois-ci l'enquête fait ko sa wet ni Macky Sall veut redistribuer les cartes multinationales si boppam la bëgg a convention ya xaatimoon ñeel pétrole beeg gaz bi vox populi dikk ce momit ni concertation nationale la Macky Sall woté ngir xol nanuy seddatlee koppar ba bañu jëlé ci pétrole beeg gaz bi buñu fa tolloo fa bu tollu mom neexu ko benn yoon kookee moo di Touré si l'observateur waa Touré mu nga say xamné ni dañu ko toroxal gatchal nañu ko ci biir APR tekkeetu fa tous nasatu fa te nocceetu fa buñu def duñu ko yëgal té duñu ñu ko laaj xalaatam Youssou Touré nee na waay waay nanu ko wax te dee Moustapha Cissé Lo na dëgg dafa mel ni ñaari APR moo am tey ji wàcc bees yi baneen ba nag ñu jagleel ko ña nga xam ne ñooy militant première heure nekkoon fi ba dara dul dara bi ñëpp ne déet ñoom ñu taxaw ne waaw fii la tey ji nag ñooñee ci boppam la parti bi jël jàllax Youssou Touré nee na ku ma xam-xam ne kenn du ma tegee boor ma koy muutuwaale dañu ma toroxal ba mu ne toot nañu ma def si biir APR ëpp na te nag yéen sénégalais yi maa ngi leen xamal ni bu mu bett kenn ma gisee may doxantu ci mbedd yi di waxtu ndax jige naa foofu nag aha kay ndax ñoom seen biir am na ñu say wax ni Youssou Touré mi kat léegi xel mi tàggu ko waaye nag ñoom seen bopp war nañ ko mën a ruus nag di xool ba sam xel di ma tàggu nanu ma internet fej ma bu fekkee loolee moo am maa ko wax tey di ko dëggal APR tey ji sabar gu tas la kenn xamul fu galañ nga féete fu waaye neex rek fàqee sa làng nga dugg ca biir loolee ci boppam man Youssou Touré maa ko dul muutuwaale ka ko muutuwaalewul kay moo di président Macky Sall yóbbante na ay kàddu de ABC à Alioune Badara Cissé si Vox Populi mu ngi koy xamal ne si ndajam ñetteelu assemblée générale bu association des autorités comité anticorruption foofee la Macky Sall profité def saak prox ndoll ngir yóbbante saay kàddu ABC di ko xamal ni nag tabb nit ki si ab bërëb bu nga xam ne ni waru fa yëkkati kàddu wala sax kàddu waru jóg ci yenn débat yi ba noppi ñu koy dégg ci yenn kasaw-kasaw yi loolee waras naa mën a ñàkk nag waaw loolee droit de réserve te loolee nag tàmb nañu ko gis fii ci réewum xel xalaatul nag ñu koy bàyyi mu dem ci réew mu nga xam ne état de droit la wax kon Modi moo di ñu génne Khalifa Sall waye it Barthélémy ndax nénañu ko xamul buur dee na nag xam nak bour Cheikh Diop Youssou Mbaw ak dafa Khalifa Sall ci bi lu autorisation ñak autorisation la yémalé place de l'indépendance la dox wutali ba xam ani ban autorité mo ñu koy tere ñu maaj dox ci kawam kanam mu dox ci kaw Macky Sall Karim maître El Hadji Amadou Sall sa la sur l'observateur néna 2019 la gisul ani lan moy téré Karim Wade song Macky jël ba amul benn werante dégg daaliba wi ma dikk ci libération wàcc na ci areenu attekat ba de nee na parquet sàkku na ci doyen des juges ngir nak mu yóbbu dossier Assane Diouf moomee sàggkat ba chambre correctionnelle mel ni kon kàddu ga mujj ga mu nga def chez magistrat instructeur ba yootul vox populi l'observateur ma dikk ci xibaar bu naxat yi faatu ko capitaine bu asfa ah kay Antoine Coly lay wuyoo nee nañu de sa digg match bala amee ak malaise lok meñ ba daal di fay doxe faatu moonte de juróomi simili rekk nag moo desoon si seen jongonteeg gia mu daal di fay amee ak cong ba nu koy évacuer la ñàkk bakkenam xabaar ba tiis lool beneen xibaar nag neex lool mu di alxari bu jip vivian takk nanu ko dee l'observateur ak lanke daal di say dikk nee na Viviane léegi madame Dieng la waaw waaw Tafa bu Dabrans nekkoon manager moo ko takk kon heure ménage waaye nag jàppale ne jëkkër ja woon Bouba Ndour nee na moom it day takk de l'observateur nee na ba nu ko woowee téléphone moom Bouba Ndour dëggal na xibaar bi nag nee na tey ji day takk soxna de génn ci arénu célibataire bi waaye nag bu fekkee Viviane xam nañu ne léegi madame Dieng la Moustapha bu Dabrans moo di jëkkër ja Bouba mii de kenn xamagul fu muy takkee waaye it kenn xam amagul ku muy tàkk moom daal dëggal na ay kàddoom nee na daal tey ji day takk jabar te bu ko kenn yàqal mu ngoog dig daje fii nii ni kaay jaa bon café